suñu mbokk internet yu seen tv point info asalaamaaleykum nuyu nañ leen ziar leen jox leen seen waay di leen wax juma mubarak dal leen a jàmm seen émission saanu askan wi miin ngeen ko chaque lundi ak vendredi tim bi daal di dellu si waat waxtaan ak yéen lépp loo xamante ni actualité la ñeel euh, semaine bi xam ngeen di duma ci wéet benn yoon saa su ne maa ngi ciy ànd ak euh, suñu rédacteur en chef Babacar Franki Ba ak Seydina Oumar Gueye du ma def lu dul bàyyi leen ñu nuyoo Babacar nuyu naa la waaw Sohna Fatou ñu ngi lay fay. Mm-hmm. et puis di nuyu au passage suñu confrère Omar mi ñu bokkal plateau bi. Mm-hmm. Euh, di nuyu bépp téléspectateur Sen TV info di leen wax dal leen ak jàmm et di fële fëddaliwaat suñu mbégte ñëwaat ci plateau bi. jaajëf Franky Oumar nuyu la. maa ngi lay fay bu baax Fatou. mais di nuyu sama naataangoo bi ma bokkal plateau bi di nuyu aussi suñu mbokku internet yu Sen TV l'original yëpp di wax ne mbégte ak contentement la am saa su nekk. Mhm. teew ci plateau bi di takku saan askan ay ci am na solo li ñuy waxtaanee tey bokk na ci euh, weekend wi nga xamante ni tàngoon na lool ci suñu mbokku pêcheurs yi ñu gis. ci ay moor yu bare bari sax ci tamit dinañ waxtaanee augmentation des député député yi nga xamante ni nañu ci assemblée nationale daal di waxtaanee procès de l' assassinat Thomas Sankara 35 ans après ba mu bañ ko faateeg léegi dinañ waxtaanee itamit euh, premier tour présidentiel ca France lii mooy takku sanwi tey acca du ma def lu ñu tàmbali ak euh, Francky li nga xamante weekend week-end wi ñu génn mu nekk week-end bu tànk tàng sax ci suñu mbokku pêcheurs yi ñu nemmeeku ci ay moor yu bare bare bari ak ñoo xamante ne ba tey xamuñu sax euh, fan la ñu féete ci géej gi. waaw wax nga dëgg soxna Fatou dañuy tàmbale d'abord par jàll euh, ñi mbokk ñi nga xamante ne seeni mbokk ñàkk nañ fa seeni bàkken mm. di leen ñaanal yàlla xare leen ajana woyofal suuf seen kaw mm. te wàcce yërmandeem ci seeni mbokk yi fi des mm. euh, di wax ni lu ñuy naqarlu la lu ñuy naqarlu di ko méttitlu la ndax xam nga bàkkeenu nit moom bu ci benn rotee rek dafay daal doon ab douleur. Mm-hmm. massa nag ñu jóge ci benn semaine boo xamante ne bu dee dañ lay wax lu jëm ci dix mm-hmm. personnes yoo xamante ne ñàkk nañ ci seen bàkkeen mm-hmm. te sans compter ñi nga xamante ne ni ay disparu lañu ba léegi gisaguñu seeni néew. te muy loo xamante ne mu ngi xewee ci diggante Petit Mbao Grand Petit Mbao fii euh, Mbour Saint-Louis.

te comme suñu géej gi léegi jën yi dafa xaw a mm-hmm. ak euh, li fi xew lépp li nga xamante ne wax nañu waxaat na ko mm-hmm. donc loolu day pousser un tout petit peu les pêcheurs mm-hmm. ñuy dem bay exploiter ay contrées yoo xamante ne ni ci géej gi daanuñu fa woon yegg wala amuñu ci maîtrise donc loolu bokk na ci loo xamante ne ni moom moo ñu yóbbee lii lépp tey encore une ñu ngi koy naqarlu di ko métitlu et puis di ñaanal way dawlu yi amiin ñu ci bëri tamit Omar jàpp ni na ci lu causé ci géej gi waaw d'abord di jaale famille ñi nga xam ne ñoo ciy ñàkk seen ay njaboot. Mm-hmm. mu nekk lu nga xam ne lu métti la franchement. Mm-hmm. comme ni ko Franck waxee benn bakkan bu. bu dem rek dafa métti. mais ñu gis ne c'est plus de dix personnes yu nga xam ne dañoo sànku ci li nga xam ne mooy géej bi. Mm-hmm. comme ni nga ko waxee nag ngelaw li peut-être mën na nekk benn cause bu nga xam ne dafay andi des fois jéey yi. moo tax suñu mbokku nappkat yi ñu leen di conseiller toujours ñu déglu li nga xam ne mooy météo. su a dem a retourner Mhm. mais franki dafa souligner lu nga xamné lu am solo la moy rareté des poissons bi nga xam mhm. jamono ji dafa am ci la côte sénégalaise mhm. boba da ngay génn rek am jën et malheureusement ak contrat yeeg licence de pêche yi ñuy jox ñenn ci ay étrangers ñu fi ñëw di napp ci li nga xamné moy mooy suñ ji da fay andi conséquences yi rek lay andi parce que moy tax suñ li nga xamné moy mooy nappkat dootu ñu am accès accès ci li nga xamné moy mooy yi fi nekkoon dañuy obligé di démat ci yenen jëmukaay yu nga xam ne duñ ko sax maîtriser mais aussi gaal yi ñu fay demee est-ce que nekk na gaal yu nga xam ne tamit gaal yu baax la. loolu tamit jàpp naa ne état wu Sénégal war na ko seetlu bu baax a baax. parce que biir géej moom dafa nekk lu nga xam ne comme ni ko wolof yoo waxee amul bànqaas aussi gilet yi tamit dañ leen koy conseil mais malheureusement am na fooy tollu ci géej. li nga xam ne mooy gilet mënatu la sauver. Mm-hmm. ñuy woowaat li nga xam ne mooy état mu jàppale bu baax a baax suñu nappkat yi. Mm-hmm. xoolaat licence de pêche yi parce que loolu bokk na ci liy cause li nga xam ne mooy jéey yi. parce que suñu amatul jën ci li nga xam ne mooy suñu zone bi mm-hmm. dinañ jéem a jéggaani dem ci yeneen zone ba mooy waral sax des fois en dehors de li nga xam ne mooy décès yi ñu leen di jàpp ci lu mel ni Mauritanie Gambie feneen ak feneen. encore une fois nappkat yi li ñuy dund moom metti na mm. et eh, di leen di masawu bu baax a baax en tout cas metti na loolu dañu leen di eh, jaale bu baax a baax di leen ñaanal yàlla yërëm leen leen te xaare leen ci àjjana yi gën a kawe ya di ñaan tamit ñi nga xamante ni fi mu ne nii gisaguñ leen yàlla nañ leen gis ñu génnaale ak bakkan aussi ah franchi mu nekk loo xamante ne lu doy doy waar la plus de dix mois yoo xamante ni am nañ ko ci semaine bi ci géej gi ku xam géej xam ne dafa nekk loo xamante ni dafa doy waar man nappkat yi man personnellement dama leen yaram parce que mi ci lépp risque la dafa risqué non seulement comme ni ko Omar doon waxee léegi dafay am foo xamante ne bu ñu fa yeggee rek euh, ñoom dañuy risqué seen vie parce que si suñuy suñuy waaf waaf waaf lañ ko waxee defe naa awolof <laughs> géej waaf c'est pas fi nga xamante ne fa lañ leen yemale euh, étranger yi ñooy ñëw di jël suñuy jën di fa bàyyi jën yoo xamante ni ñun euh, duñu du mat dara léegi ñoom dañuy obligé di génn di dem euh, ci yeneen a euh, géeju jàmboo comme ni nga ko waxee léegi mooy tàññee yi ñooñ mën nañ leen a jàpp di leen maltraité ah ay fan ci ginnaaw rek gisoon nañ ci demee noonu nekk yoo xamante ni dafay doy waa lool aussi naka lañ war a def ba état jàppale leen tamit Oui, tout le temps rek euh, plus lu est nekkee ci ab da am une part de responsabilité mm-hmm. euh, rawatina nekkee ci la pêche a été régularisée mm-hmm. te lu jëm ci li encadré nguur gi donc tey forcément dañ koy joxoñ baramu tuuma mm. mais day day day lajat encore une fois rek ñu revoiraat euh, manière yi ñuy joxe licence de pêche yi waaw surtout et puis manière yi ñuy défé yi ñuy signer coopération coopération yi avec euh, les pays étrangers yooyu non ndax tay ñun bo xolé fi Sénégal suñu napkat yi mm. euh, ay gaalu 15 mètres ak yooyu non lañuy yor xam nga ma la wax gaalu 15 mètres moo rëjal 15 personnes ak yooyu noonu. mais ñoom buñ ñu demee ci biir géej géej ñañuy la ñuy fekk foofu noonu ay la lay doon. Mhm. est ce que comprendre li moo la ay mhm. bateau lu toll di dëkk. Mhm. ay paquebot xam nga yow boo ñëwee di napp ak ay filets yu ndaw ñoom ay machine la ñuy yor. wala ay système yoo xamante ne ni mooy loolu. donc euh, loolu yëpp nguur gi moom moo ci war a jël matuwaay yi ci war. et puis ci matuwaay yi muy jël également da ci bokk aussi mu fexe ba nu ñu mën a.

du pêche bu nga xamné mom mm-hmm. lepp lu jëm ci walum géej gi mom mm-hmm. lañ ko jaglél mm-hmm. donc war nañ gëna mëna yok seen ay xarala. ba ay disparition amé rek avant jéey yi di am li nga xamné moy marine nationale bek ñeneen li nga xamné ñoy ñooy liggéey ci walu boobu. ñu jéem xol ana naka lañuy def rek bu sauver suñ mbokku pêcheur yi. mais aussi contrat yi dafa nekk lu nga xamné lu am solo la yagul bi ñu génnee ci li nga xamné moy fête de l'indépendance indépendance. muy suñu 62 ans. d'indépendance et ba léegi dañuy gis contrat yi nga xam ne suñu état mi ngi koy signé dafay mm-hmm. nekk toujours en faveur ci étranger yi mm-hmm. te surtout ñoom bateau yi nga xam ne dañ koy indi fii lépp lu ñu romb dañ koy jëlwaale ba tax na suñu géej dara desatu fi raison de plus mooy tax li nga xam ne mooy suñu nappkat yi mm-hmm. di génn suñu zone yi di am ay difficulté mais tamit ñi ngi woote waat li nga xam ne mooy état wu Sénégal mu gën a dooleel li nga xam ne mooy nappkat yi parce que napp dafa am solo baax a baax ci li nga xam ne mooy dëkk ni ak sama mbokku sekkeen yi ñoom suñu lekkul jën dañuy am problème pour doxal li nga xam na ci jàpp bu baax surtout président bi bu ñu fàttee ni barki démb rek mu ngi woote souveraineté alimentaire. alimentaire waaw mhm. dafa bëgg ñu am suñu souveraineté alimentaire. Mhm. bu ñu fàttee ginnaaw jën yi. ak géej gi aussi. Ah. surtout surtout d' autant plus que suñu ceeb bi léegi comme dañ ko yóbbu UNESCO.

jamono ji euh, ñu bëri euh, député yi nga xamante ne Francky bëgg nañu yokk ci assemblée nationale. waaw assemblée nationale bi xam nga dañu jëm ci élection. Mhm. Euh, pour soppi législative bi di ñëw. Mhm. nous euh, avons déjà nous avons une idée selon laquelle si nous avons une le nombre de députés de l'Assemblée nationale est de 165 à 172. Donc, ce qui veut dire que 7 députés nous avons une maintenant sept députés yi nar a yokk euh, euh, day fekk euh, nu mu tuddati Kër Massar sax on comprend facilement que nouveau département la mhm. donc c'est normal mu am député yu fa yok mu am ay député yu bees té ñom nénañu ñaari député la ñuy am mhm. ci biir ñaari député yoyu ben bi day lolu aussi day indi Pikine mu ñak ben député mhm. mais Thiès bi ñu bëgg a dolli benn bi ñu bëgg a dolli ñaari député war a dolli Mbour également benn député mhm. bëgg a def euh, Bunkiling benn député Médina mhm. Yoro Foulah benn député d'après mhm. proposition yi ñu joxe maintenant li ñu war a lijjanti mooy Thiès ak Mbour est-ce que poids électoral bi dafa yokku nombre inscrits dañuy yokk wala nombre électeurs yi dañuy yokk ba loolu moo war a mën a tax ñoom ñu yokkal leen seeni député loolu aussi c'est c'est des questions à se poser mais ku ne xam na ni boo jëlee tey par exemple la région de Diourbel hmm. bu fekkente ne ni fu population bi wala fu électorat bi yokk rek nga yokk député hmm. donc tey la région de Diourbel yaakaar naa ni moom moo waroon mën a am député yu ëpp ndax foofu kenn wul ni ginnaaw Ndakaaru hmm. euh, ñoom ñoo fi teg tegu en poids Mhm. Euh, démographique et un poids électoral également. Mhm. maintenant laa am na ci kaw loolu am ñoo ni déjà ñoom ñu ngi wax ne jarul pour jarul nombre de députés c'est-à-dire ils n'ont qu'à juste enlever quelques députés au niveau de la diaspora. Mhm nous gagnons le nombre de députés yi nek au niveau de la diaspora mhm. jël sept députés yooyu ajouté leen fii mhm. juste pour éviter les dépenses pharaoniques yi nga xamante ne ni day ànd ak député parce que bien député bu nekkul c'est un c'est tout un budget mhm. député c'est tout un budget Bon, naree dem ba sept mooy loolu quoi mhm. en tout cas Oumar fekkee am na loo ci yoko wa man d'abord euh, li nga xamné moy nombre de députés yi nga xamné dañ ko bëgg jëlé 165 cent ko ba 172 mhm. man voilà je suis foncièrement.

110 000 habitants. Donc, 165 ils représentent, député représente 110 000 habitants. cela veut dire que la population du Sénégal a évolué avance, augmentation par rapport à les années 1960. Parce que pendant les années 1960, nous avons monté 80 députés pour 37 500 habitants. Donc, cela veut dire que député députés représente représente 35 500 habitants. L'eau -hmm. Lolo, évolution so amé mën nañ ko nangu nam mais contexte bi ñu nek pour ñu jëlaat li nga xamné moy ay dépenses diko yok ci charge état dama koy dénoncer parce que japp naa ne wàllum politique rek mais moko lal mhm. du li nga xamné da fay jëmale Sénégal kanam mhm. te so xolé Sénégal député yi ñu am tamit dafa jot ñu chambarat ko lan moy sen njëriñ ci askan bi parce que da ngay gis ay député yu nga xamné dañuy dem assemblée nationale difa fa difa di xuloo ñu leen dégg ci ay soi-disant viol ay député ñu leen dégg ci walum passeport diplomatique mhm au finish député yooyu lan lañ defal li nga xam moy askanu Sénégal. Mm. et aussi député suñ koy fal dafa nek un représentant du peuple. Mm. et en dehors d'être le représentant du peuple moom dafa war surveiller li nga xam moy l'action du gouvernement te da ngay gis député yi ay loi dañuy ñëw foog ñëw tàccu yuuxu voter hmm. sans ñu connaître sax loi yi nga xam ne dañ koy. dañ koy voté donc suñ bëggee jëlaat yeneen charge tegaat ko ci état bi. Hmm. duñ def lu dul di ko. des fois des fois hmm. nga dem ci ab localité sax fekk population bi xamuñu sax kan mooy seen député kan mooy seen député député yi ci boppam ñoom xamuñ kin doon. c'est ça le vrai problème quoi da ngay nekk député te yow xamoo li la war. les questions essentielles qui entrent l'esprit de la société ou sinon de l'homme doo ko xam. et su jël xaalis di la ko jox jàpp naa ne voilà c'est du peine perdu. on fonctionne au Sénégal on fonctionne avec une majorité. Mhm. Les députés de la majorité sont choisis depuis le palais par, mhm. par euh, euh, le pouvoir exécutif. Mhm. Maintenant, ça se comprend aussi parce que je sais que je suis palais, je suis Massar ban nit mo leen gën a représenté ban nit moo gën a mën a jege population ba mu mhm. jël kooku def ko ci liste bi ba kooku dem doone député mhm. donc loolu la ñu war a régler d' abord loolu la ñu war a régler d'abord mhm. fexe ba député yi mu doon ay nit yoo xamante ne ni askan wi seen bopp ñoom ñoo koy tànnal seen bopp waaw mu ba doon député yoo xamante ne palais la ñuy taxaw tànn ko et puis au delà du pouvoir aussi même du côté de l' opposition c' est pareil parce que député yi ci permanence lañ leen di tànnee xam nga loolu la ñu war a lijjanti d' abord en tout cas daal askan wi soxla wuñu ay député yoo xamante xamante ni dañu nekk assemblée di nelaw ak di xuloo ko xeex ak ñoo xamante tàccu lañ fay nekkee. ñii toog di seetaan Pod et Marichou <laughs> man li ma assemblée li fa ne amul fenn <laughs> ah ba yàlla baax na ñi fal daal li leen fay teg nañ fexe nekk ci li nga xamante ni mooy soxlay askan wi. ayca ñu jàll suñu troisième point ci procès bi nga xamante ni mu ngi wéy di am ca Burkina Faso 35 ans après ba ñu faatee kii di Thomas Sankara jamono ji nag verdict bi dafa daal waaw d'après après li nga xam ne information yu jot. Mhm. nekkoon nañ ci 35 ans d'incertitude incertitude mënuñoon na xam wala bok yoon tranché wuloon pour ñi nga xam ne ñoo assassiné le président Sankaré. Mhm. et gis nañ li nga xam ne mooy seen justice daan ki nga xam ne mooy Blaise Compaoré. Mhm. voilà li nga xam ne mooy coup d'état moom ak fu mu mënte ko am ak anam bu mu amee dañ koy regretter dañ koy ñaawlu. Mhm. parce que nekkul lu nga xam ne lu légitime la. mais tamit su coup d'état amee forcément il faut ñu situer les responsables. te responsable yi gis nañ ne bëri nañ mais kiñ ci gën a ràññee. mu defoon wala boog mu sàkkoon li nga xam ne mooy coup d'état bu. jamono jooju jamono jii may wax ak yow yoon daf ko daan. et voilà su ko yoon daanee nag jàpp nañ ne li ci war top moy mooy. képp ku nga xam da ngay def coup d'état nga bàyyi xel mm. na soko ko tamit. amna ay sanctions yu mën dal sa kaw. Mm. je je rappelle que coup d'état mën am alors que duñu ray li nga xam moy président su boba peut-être que li nga xam moy justice ni mu war a yoon bi dina dess mm. mais dès l'instant que coup d'état am ñu ray ki nga xam moy président. forcément on attendait à ça et voilà di rafetlu bu baax baax liggéey bi nga xam ne Burkina Faso. Mm-hmm. seen justice def na ko. Mm-hmm. ba teg loxo képp ku nga xam ne danga laale ci mbir mi. Mm-hmm. mais jàppoo ne justice dafa yéex 35 ans après Franky wa non bu dee côté de la justice Fatou man damay D'abord, abord damay tàmbali par dire bravo à la justice africaine. parce que pour une seconde fois. nous mm. euh, avons des présidents même si ce n'est pas des présidents en exercice qui ont jugé nañ ici au niveau de notre du sol africain. Mm-hmm. ba ñu mujj am verdict. verdict nous ñu fàtte ni Sénégal la ñu jugé euh, pour une première fois. Et nous avons demee ba président bu euh, Blaise Compaoré. Mm-hmm. même s'il n'est plus président juger jugé ko. teg ay Donc on ne peut qu'applaudir la justice africaine. Mm-hmm. Cela prouve encore une fois que les Africains du côté justice du commencé de une indépendance mm-hmm. D'autant plus que nous avons déjà dañuy la Cour pénale internationale. Comme ñoom dans nañu CPI dafa mel ni ñoom rek la fi maintenant c'est une bonne chose bu fekkente ne ñu ngi dem ba ñoom seen biir pour euh, revenir à ta question. Mm-hmm. di wax ni rek euh, xam nga verdict euh, du a wax mm-hmm. à dire delloo nit ci ay droit mm-hmm. restituer droit il n'est jamais trop tard pour ça. Il yagul a ans mais comme le temps de la justice n'est pas souvent le temps de tout le monde. Mhm. tu vois donc on comprend ça c'est normal ni rek mon maintenant. reste à savoir ce qu'on doit se poser Moi, est-ce que peine yi ñuy peine yi poser yi mhm. même bu on parle de perpétuité. Mhm. Hein? mais est-ce que peine applicabilité. parce que Blaise Compaoré depuis 2006 ba ngi Côte d'Ivoire. hein Côte d'Ivoire la dem euh, rek en prison mais sinon Kafondo xamul Kafondo ci wax sax mm. parce que Blaise Compaoré ak euh, ñom dañ leen complicité d'assassinat. Mm-hmm. Eh, eh, ñu ñu teggil leen recelu koor bi mais kafondo moom. moom lañ moom la ñu def principal euh, tueur moom lañ ne moom moo rey waa ji. Mm-hmm. te malheureusement kafondo tey kenn xamul ko mu fu mu féete. Mm-hmm. Donc, euh, c'est bon en soi d'avoir un verdict, mhm. mais il serait préférable que le verdict puisse être, appliqué, aux personnes. Ati jaajëf ba tey dañuy des actualité internationale dans le dialogue ba France une élection présidentielle est au premier tour yi nga xamante ni jamono ci ñu est ci Omar. Wa comme nous ñu ko gisee rek ñu jour jours yi mhm. élection présidentielle qui am France. Mhm voilà jàngat biñ ci def nak moy candidat yi bari nañ bari nañ torop mhm. mais ñun ci gëna rañé moy le président sortant ku ci melni Emmanuel Macron. Mhm. mais tamit Marie Le Pen bi nga xamné yag na ci lool. di hein? troisième candidat ci <laughs> ah, waaw wa élection yi mom comme niñ ko gisee ñun ñëpp jour ji moins deux li nga xam ne mooy dimanche la ñuy amal élection présidentielle fële ca France mhm. candidat yi ci gën a remarqué nag mooy ki nga xam ne mooy le président sortant Emmanuel Macron mhm. Marie Le Pen mi nga xam ne yàgg na ci torop di mhm. yootu li nga xam ne mooy président bi waaye tamit am na ñeneen ñu bees ku ci mel ni Zemmour man moom laay woowee le le <laughs> di Kenya du Sénégal quoi mooy Madi Kenya wu France parce que tellement li nga xam ne mooy touche bi mu andi dafa am solo trop mais tamit am na ci geneen wàll ku ci mel ni Jean-Luc Mélenchon. Hmm. mais ginnaaw li nga xam ne mooy intention de vote yi ñu commencé gis. Hmm. parce que ñoom seen dañoo nekk ay démocratie yu nga xam ne suñuy génn des fois ay pourcentage di estimer les hmm. intentions de vote. li ñu gis actuellement mooy Emmanuel Macron moo nekk ci kaw. mais nekk ci kaw boobu taxul mu gagné li nga xam ne mooy élection yi parce que dañ ko estimer à 26 qui pour cent ki topp ci ginnaawam di Marie Le Pen 22 pour cent qui nga xamné moy Jean-Luc Mélenchon ñeu ak 16 mhm. toujours pour dire que rek actuellement ci monde bi ñu toll. Mhm. gagner élection premier tour dafa nekk lu nga xamné ne lu jafe la. et tendance yi ñu commencé di dégg à travers les médias français. Mhm. cela veut dire que forcément deuxième tour mënul ñàkk ci élection yi. mais ñuy ñaan li nga xamné nous élection yi ñu jëm ñu jëm ci ci daw. parce que élection dafa nekk enjeu bu mag mo ci nekk. li ci làqatu dafa bëri mais ñu ngi koy suivre de tout près espérons que ki nga xamné moy euh, le maire dina gagné élection yi. espérons que nañ ko ci nañ ko amalee ci am na bi mu gënee Francky. waaw waaw suñu suñu doomu ndey élection suñu doomu ndey xam nga France ak Sénégal moom. ay doomu ndey lañu ñaari doomu ndey lañu France ak Sénégal bon d' abord euh, damay contrairement li li li Omar di wax nii. damay mm. bëgg damay bëgg indiwaat xelam tuuti rek ñu bañ a fàtte ni euh, sondage France moom defe naa jaratul dara depuis mille 2017. ndax 2017 buñu faté bi Macron di gagné. eu benn sondage bu joxone Macron vainqueur. Euh, Hollande la ñëpp joxone vainqueur. Euh, Macron est venu à la grande surprise de tout le monde. et puis un an avant lu ko jitu également à na élection yi mon États-Unis tout le monde avait donné euh, Hillary Clinton vainqueur mm-hmm. sondage yëpp moom la ñu joxoon vainqueur. Mm-hmm mais au finish fi ñu mujjee gis nañ ko même bu il y dañ une élection États-Unis ak élection yeneen élection yu bokkul schéma bi ni muy non. Mm-hmm. mais man pour te dire la vérité Les euh, ay sondage français yi moom je mm. j'y prête plus attention depuis 2017 depuis ce qui s'est passé en 2017 mm-hmm. maintenant si on doit prendre en compte les sondages c'est vrai qu'on donne gagnant euh, Emmanuel Macron mm. suivi de Marine Le Pen Marine Le Pen mi nga xamante ni troisième candidature c'est sûr et certain que Bipa mom moom bu amul dara mom day retraité mu joxe bagage rek comme ni ko papam defee woon te xam moy lolu loolu mu joxe lengee légui mm-hmm. kenen ki ñi wax aussi Éric Zemmour ben li ma jaaxal kay moy comment est ce qu'il peut être crédité de 10 des intentions de vote man lolu moom jaaxal. Mm-hmm. cela veut dire également que. idéologie yi muy woné yi muy mm-hmm. woté mine de rien amna ay français yu ci d'accord ak Absolument. On est français d'accord au on a droit à avoir peur par rapport à ça Donc question de avoir peur que Éric Zemmour dina gagner élection voilà. Mm-hmm. mais juste avoir peur pour l'avenir mm-hmm. parce que vous faire qu'il y a un courant puissant le que France un courant mm-hmm. aussi hostile à aux étrangers aussi nationaliste que ça donc euh, nous, les étrangers fier que quelques années on a le droit d'avoir peur maintenant euh, élection France élection France là est-ce que su gisuma ko gagné. Hmm. Euh, est-ce que dina un impact direct direct direct parce que encore une fois je ne dis pas que do am impact sur la le vécu des Sénégalais. Hmm. mais sur le quotidien du Sénégal. est-ce que dina am impact parce que pour te dire la vérité c'est une politique étrangère hmm candidats 12 candidats yep, en hmm. matière de politique étrangère il ne te parlent que de l'Union européenne c'est ce qui est intéressé hmm. mais à part Jean-Luc Mélenchon je crois en moindre degré je hmm. moo un tout petit peu mettre l'accent sur euh, le continent africain mais sinon il y candidats candidat, yep, pour nous, l'étranger se limite autour de l'Union européenne donc encore une fois nous ñoo war que suñu bopp élection France amul dara lu suñu suñ suñu réew. ayca man xam naa rek avant ngay uh-huh. kii ngay tëj uh-huh. am na lu nga xam ne il faut ma yokk ko ci. Uh-huh. mooy ci wàllum candidat yi nga xam ne ñoom intérêt France rek lañ gën a jiital. par rapport rek intérêt yeneen réew yi. loolu tamit daf ñu war a pousser ñun en tant que sénégalais wala boog njiit yi nga xam ne ñu ngi leen di fal. suñ fi nekkee nañ fi nekk pour l'intérêt général de la société sénégalaise. en dehors de li nga xam ne mooy Jean-Luc Mélenchon ci discours gars yi liñ ciy gis mooy ñoom dañu bëgg seen réew. bien vrai que waxuma ne Jean-Luc Mélenchon dafa bañ France mais moom au moins amna un peu de considération vis-à-vis de l'Afrique mm-hmm. ci ay discours am ci ay démarches am ak lépp mm-hmm. Mm-hmm. loolu tamit japp na ne man président bi gën ci li nga xamné moy le peuple africain ci li nga xamné moy Sénégal man pour man moy Jean-Luc Mélenchon mais moom il peut créer la surprise hein wa absolument il peut créer la surprise te comme niko ki kii des fois moom estimation yi ay intention de vote la rek mais la réalité ci li nga xamné moy dimanche peut-être lañ koy xam koy xam waxtaan wi neexoon na amoon na solo waye li ñu ci waxtu dafa daal di jeex Francky comme nous niñ ko nous rek ah, Omar bi ñu bokkaloon plateau bi. Mm-hmm. sant euh, téléspectateur TV info. Mm-hmm. et encore une fois di delloowaat euh, famille yi nga xamante ne nañu seen i ci mm-hmm. géej géej yooyu ah, di leen delloowaat njaal di ñaanal way nous Omar. looy tàggatoo. waaw di am mbégte ak contentement teewaat ci li nga xam ne mooy plateau tàkkusaanu askan bi di jaajëfal suñu mbokku internautes yu 5TV l'original yépp waaye tamit di souhaiter joyeux anniversaire à mon ami mon frère. Hmm. Mamadou Samb borom Samb Couture borom hmm. ñaw yu baax yi. xanaa moo la génne fii. waaw moom ma génnee fii mais di ko ñaanal borom bi gën a seetal li nga xam ne mooy loxo bi. amiin mais tamit may ko kàttan ak wér hmm. ju nga xam ne dina mottali ay projet bi incha ci amoon naa mbégte kontante daal di bokkaat ak yéen euh, plateau bi suñu mbokk internet yii lii leen leen indiloon tey ci sànn wi di jaajëfal Fatima Zahra Sall mi nga xam ne moo nekkee ci caméra bi ak euh, képp koo xamante ne yaa ngi doon bàyyi xel di leen jox dig dajee altine incha allah ñu yendoog jàmm